jërë ngeen jëf euh, mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci rajo réew mi euh, FM ñu leen di euh, jaajëfal bu baax a baax di rafetlu seen ànd ak ñun mbokk yi tey si samedi ji ñu dellu siwaat ci seen émission pencum réew mi comme ni ñu ko baaxoo di def samedi bu jot ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck mam du Diaw jàll moo nekk ci wàllu machine bi mbokk yi tey ñu invité euh, Adama Fall di coordonnateur euh, national du serment nekk membre du réseau national des enseignants de la l'APR responsable politique de la l'APR aussi euh, fi nga xam ne moom mooy Médina Adama Fall moom la ñu invité tey ci seen émission pencum réew mi ñu fas yéene waxtaanee ponk yu bari Adama Fall maa ngi lay nuyu. Euh, sëñ Abdou Khadir ñu ngi lay ziar di la fay di la jox sa wàccuwaay di nuyu say auditeurs ak say auditrices yi nga xam ne ñoom ñoo safoo di déglu sa émission bi di pencum réew mi pencum réew mi nag tur bu yaatu la. rëy na nag donc ça veut dire que honneur la pour man pour ma mën a toog ci penc mi pour waxtaanee réew mi. parce que loolu mooy concept émission bi toog ci penc mi waxtaanee réew mi. Euh, jërëjëf euh, Adama dina ñu waxtaanee xam naa ne lu baree baree bari ci élection locale yi ñu dëgmal ak investiture yi. ak euh, Médina aussi euh, ndax dégg nañ fa léeg-léeg ñu ne Cheikh Ba mooy candidat waa Médina parfois ñu ne Seydou Gueye mooy candidat waa Médina euh, benn Bokk Yaakaar tamit investiture yi nar nekk loo xamante ni nat yomb si ñoom coalition yi nga xam ne moo am ci opposition bi danañu ko waxtaane mais fi ñu dooree waxtaan bi fan yii coowul passeport diplomatique yi dafa nekk ci actualité bi ba pare xaw see yàgg trop ndax dafa dañ siy tudd ay activist wala ñoo xamante ni ay rappeurs lañ bokk ci benn kuréel bu tudd Y'en euh, di kilifa ak Simon ñoom jamono ji sax euh, ñoo ngi ci euh, ñoo ngi ci kaso bi am na tamit ñaari député yu bokk ci mouvance présidentielle yoo xam ne tudd nañ leen ci lu jëm ci trafic passeport diplomatique ñu njëkkee ko ci kuréel bii di Y'en dafa am ñaar si ñoom ñoo xam ne tudd nañ leen ci loolu tuumaal leen ci ba ñoo ngi ci kaso bi yow lan moo ci sa xalaat Adama Fall tiitaange ak njàqare laa am ba ma déggee coow trafic de passeports diplomatique parce que c'est l'emblème de la nation sénégalaise tiitaanga njàqare teg ko ci suñuy emblème moom la nit ñi di foowee ba di ko jaay tiitaange ak njàqare xam ni suñu république moom la nit ñi di fowe ba di ko jaay parce que la le passeport diplomatique ay diplomate ñoo ko war a am donc du ne moo war jóg di ko di ko am mais puisque ñi ngi gis ay doomu aadama yi koy foowee danger am na ci réew mi war na mën a taw taxaw seetlu ñaar ñi nga tudd noonu muy Simon ak kilifa yoon teg na loxo seen kaw ba enquête baa ngi suivre son cours ñeneen ñi ci tudd yëpp na yoon def liggéeyam ba enquête bi suivre seen cours man loolu laa gis parce que fii moom amul kenn koo xamante ni dafa war a nekk au-dessus de la loi ku ci dekk taqe ak foo mënti bokk ne yoon dal sa kaw parce que passeport diplomatique suñu Sénégal lay représenter te kenn waru ko di ko fooy. Euh, lu jëm ci euh, passeport diplomatique yi njiitu réew mi di président Macky Sall di sa leader moom 2012 bi mu ñëwee dafa waxoon ne pëccëxu anarchie bi nga xam ne moo ci am euh, dina ko saafara mais léegi gis nañ ne tey la wàllo gën a aay lan nga jàpp ne moo ko waral. pëccëxoo ak anarchie boobu dina ko saafara saafara boobu moo tax nit ñi di ci dugg di def deal. parce que dafa ne passeport yi ñii ñoo ko war a am ba mu nee ñii ñoo ko war a am gars yi jóg ci nag commencé di ci def deal di ci takk yi soxna parce que dañ ne député yi sa soxna yi dañ seen di soxna yi dañuy am dañuy am passeport ñu ciy def deal di ci takk yi soxna pour am pour utal leen passeport diplomatique ñeneen ñi di ci def deal parce que xam nañ ñi dañ koy jaay dañ koy dañ koy trafiquer ñu bëgg koo trafiquer pour pour pour pour am ci deal mais su nekk su meloon ni mu ni mu meloon ba fay Ablaye Wade di nekk su ko defaruloon su ko réformé kon tey la làmbaay kon dinga gis ku ne mu yor passeport diplomatique. donc mesure boobu mu mu ci jëloon moo tax dil yi bëri mais dil yi bëri ak kum ci mënti doon ak foo mënti bokk parce que man nag dama lay wax Abdourahmane caat ak kilifa waru nekk nekk waruñoo nekk ci kaso bi ñaari député APR yooyu di dox seen soxla. warul na yoon def seen liggéey ñu dindi seen meraanu kiiraay tëj leen ci kaso comme caat ak ak ak kilifa. Simon Simon kilifa. comme comme Simon ak kilifa suñ ko deful am na deux poids deux mesures loolu mooy dëgg ci mbirum passeport bi. Mhm. député yi nga xam ne dañoo bokk APR te laal te ñu tudd dañoo war a simmi maraanu kiilaay tëj leen ci kaso bi comme niñ ko defalee caat. Simon Simon ak kilifa parce nag. gënuñu ndey Simon ak kilifa gënuñu bàyyi Simon ak kilifa gënuñu keneen ak keneen ci àdduna ça veut pas que ay député lañ wala bennoo bokk yaakaar lañ bokk li li li ñu dañ leen bàyyi ñu def lu leen neex parce que nag li ma ci gën a ñaawlu sëñ bi man jàngalekat la ñaari député yooyu ay jàngalekat lañ yàq nañu deru jàngalekat yi parce que jàngalekat dafa diñ jàngalekat dafa doylu jàngalekat dafa xam boppam dafa gëm boppam mais malheureusement ñaari député yooyu yàq nañ deru jàngalekat yàq nañ deru député ci Sénégal donc yoon dafa war a dal seen kaw su nekkee loolu ñuy wax ñi ngi ci te li presse bi wax ñoom ñoo ko def waaye sëñ bi amul taxaw xaar nañu lever seen couvert seen seen immunité parlementaire yoon def yoonam ñu tëj leen dugg leen dugg ba jàmm caaba ja sànni parce que dañu yàq deru askanu Sénégal dañu yàq deru député dañu yàq deru président de la République Macky Sall. loolu lu tax nga bokk ci mouvance présidentielle euh, di waxee ni. <laughs> te ñu gis ne te ñu gis ne président Macky Sall euh, yàgg na ay jege jegeñaaleem di def ay njombe ay corps de contrôle di leen épingler te dara du leen ci fekk. dama ne mbirum corps de contrôle ak mbirum visa euh, passeport diplomatique c'est deux choses diamétralement opposées corps de contrôle day def rapport balaa muy publier day def enquête ñëw jox la def réponse malheureusement ci li presse bi di étayer di génne enquête corps de contrôle bi rek la ñuy génne du ñu génn réponse nit ki président amul kenn ku muy làq amul kenn ku muy làq wala ko muy protéger amul mbiru passeport diplomatique yii ci mbirum ci ñaari député yii wallaahi yoon dina def liggéeyam. parce que kenn du yàq suñu der. d'accord mais lu tax euh, affaire bi yeex mu retard bi yeex te gis nañ ne tey immunité parlementaire yi bu doon beneen député gars yi ne nañ simmi nañ ko bu yàgg yàgg lan moo tax mbir mi xaw a yeex. dama ne mu yeex ak ñu yàq yeex a ci yem li tax mu yeex xaw ma mais dañ koo war a def. mu gaaw mu gaaw nabar laa wax président dafa ne nabar nabar ñu teg teggi immunité parlementaire yi parce que ñu ngi yàqal ma Macky Sall rek. ñu ngi yàqal président de la République ngi yàq liggéeyu président de la République Macky ñu ngi yàq Sénégal ñu ngi yàq deru Sénégal parce que ces gens là ne méritent même pas d'être députés ils ne même pas d'être des enseignants avant d'être des députés wallahi parce que c'est c'est l'emblème de la nation sénégalaise moom la député yi yàq parce qu'il représente un peuple tey soo demee bitim réew da ngay yaakaar ni peuple Sénégal noonu la ñu mel à travers leurs députés et malheureusement ce qui est totalement faux dans ce pays là am na ñoo xamante ni dañoo garder seen i dignité doylu mais nag gis nga soo suuruloon démb tey di doog a ñëw moo tax ngay dugg ci ñaawtee fii. kon daal euh, yéen jàngalekat yi euh, am ngeen lu leen naqari en tant que sax jàngalekat ndax euh, Boubacar Biaye mi ngi si tudd ak Mamadou sàll ay jàngalekat lañ. mais am nañ lu ñu naqari lool am nañ lu ñu naqari lool parce que suñu sañoon corps bi ñu bokk beneen taxawaay la ñuy am assemblée nationale bu dul ay trafic de de passeport diplomatique. suñu sañoon beneen taxawaay la ñu di li am seen biir assemblée nationale lu dul seen seen njombe yi bëggoon nañ ñu tudd leen ci leneen lu baax lu dul ci passeport ci trafic passeport diplomatique bëggoon nañ ñu tudd leen ci voter ay projet de loi pour réformer le système scolaire proposer ay projet de loi pour réformer le système scolaire bëggoon nañ ñu tudd leen ci proposer des projets de loi pour réformer pour pour pour pour prendre en charge la question des enseignants bëggoon nañ ñu tudd leen ci leneen ak leneen loo xamante ne day jëmale système éducatif bi kanam parce que nag seen taxawaay ci biir assemblée nationale mooy ay jàngalekat lañ dañ fa waroon teewal jàngalekat yi mais malheureusement seen i poos lañ fa teewgaloon mais tey yàlla feeñ na yàlla wax na léegi euh, Adama Fall yow nga bokk ci réseau des enseignants euh, de la l'APR nga nekk responsable politique euh, APR nekk fi nga xam ne moom mooy Médina assemblée nationale googu ba tey coowul Bougazelli déggoon nañ ko fi démb am na beneen vidéo boo xamante ni génn na mooy bi ko gendarmerie di arrêté Bougazelli tamit bokk si yéen lan moo ci sa xalaat ndax position bi nga am ci député yi moom nga am ci Bougazelli. dama ne Bougazelli warul nekk fii di taxawaalu kuy nag te rek tax. donte tëdd na fukki weer mais jugé guñu ko ba léegi mais Bougazelli économie Sénégal na naroon nërmeel du dëgg waruloon nekk fii di taxawaal mais nañu taxaw seetlu parce que vidéo boobu naka la def ba génn mu ngi nekk ci diggante gendarmerie ak tribunal foofu la vidéo bi war a génne lu tax mu génn c'est important dans la réflexion mais kaaw Bougazeli moom warul nekk fii taxawal liberté provisoire bu moom sax dañ ko waroon bàyyi ca hôpitalu Dantec prison Dantec boobu mu toog fa ñu faj ko ba jugé ko parce que loolu mooy wàll. loolu moo war a indi mais nee dafa feebar mais gis nañ ko muy def ay activité politique loolu moo war a andi ñu xoolaat le mode tànneefu député yi ñu xoolaat ko. parce que suñu xoolaat tànneef suñu xooloon fu député yi kon du ñu am genre député yu mel ni Bougazelli du ñu xam genre député yu mel ni ñaari jàngale ñaari député yooyu doon def trafic de visa parce que seen moralité baaxul donc enquête de moralité dafa war a mën a am ci ni ñuy tabbee ni ñuy tànn ni ñuy tànnee député yi suñ ko defoon yii duñ ko du feeñ ci biir assemblée nationale parce que nag assemblée nationale yi fi xew ci jamonoy Macky Sall la président Macky ci pouvoiram li xew biir assemblée nationale mosu faa xew mi ngi xewee ci ñun te ñaaw na puisque mi ngi xewee ci ñun na justice def liggéeyam normalement ba ñett député yooyee ñu bàyyi di taxawaalu. mooy tax mooy loolu mooy lan. tëj leen ci kaso bi parce que dañoo yàq suñuy der muy Bougazelli di Boubacar Biaye di ko sant Sall. d'accord mais li ma jaaxal Adama faal moom mooy Bougazelli Euh, moom dafa ne dañ nee nañ dañ ko may liberté provisoire ndax dafa wéradi dafa feebar mais yow Adama gis nga Bouga Sali muy def ay activité politique am di def ay conférence de presse naan instant bii maa ngi liggéey ak nangam ak nangam. dama ne Bouga Sali dafa yàpp sénégalais yi justice moo war a dem fekk ko fi mu ne jëli ko teg ci kaso bi dama lay wax de man li wax la li wax laa gëm. parce que depuis ba vidéo bi génnee am naa lu ma metti nelaw ma biig ci guddi parce que xamu sëñ bi président de la république Macky tey mi ngi tuubaa war a inaugurer hôpital bu mag boobee vidéo bi yàq liggéeyu président Macky ak li Macky Sall def lu baax lépp ci Sénégal par rapport à ses réalisations ñetti doomu aadama bëgg ci xëpp suuf dañu leen war a tëj ci kaso laa la wax damu caabi ji parce que seen taxawaay ak seen jëfin. lii du taxawaayu député député du liggéey faux billet député du trafiqué tra euh, du trafiqué euh, euh, passeport diplomatique du def loolu di liggéeyam député ay voté loi la ay proposé de loi ak ak mener enquête sur la gestion de de du gouvernement du leneen lu dul loolu. bu ñu sonal sénégalais justice bi na jóg fekk Bougane bi fu mu toll dugal ko ci biir kaso bi su feebaree ñu yóbbu ko Dantec Dantec mu toog fa purger penam ñu jugé ko kon condamné ko sénégalais yi xam ni yoon def na liggéeyam parce que lii nag taxawaay yii ci ñett ñii moo tax sénégalais yi ne justice bi dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey justice bi ci boppam ñoo war a wane ni ils sont indépendant ñu raxas seen der ci mbir mii dem fekki Bougazelli fu mu ne ne procureur na lever immunité parlementaire am comme ni ñu ko defaloon Khalifa Sall comme ni ñu ko defaloon euh, Ousmane Sonko. na gaaw na bar ñu lever seen immunité parlementaire juge leen suñ defee ñu tëj leen ci kaso bi point. d'accord jërëjëf euh, Adama Fall moom mu nekk responsable politique euh, APR nekk euh, Medina wax nañ ci li nga xam ne mooy mbirum passeport diplomatique jeeg yooyu mais tamit benn question nag lañ ci wax jàll ci leneen mooy est-ce que tamit ñaawluwoo le fait ñuy filmer nit di ko wasaare ba nga xam ne léegi kenn ñëwut a waxtaan ak kenn. non loolu moom Sénégal dafa yàqu Sénégal moom yàqu na. mais attention bu Bougazelli seen normal ñu filmer ko parce que dafay nekk pièce buy dugg ci en ci dossier bi mais yeneen ñoom Simon ak nangam sangam loo ca fekk ana ko ko fekk jàpp nañ ko muy sàcc ma nga ca kaso ba ak ñoom du dëgg nañu moytu di xaw bi sutura doomu aadama yi ci askan bi nañu moytu di filminte mais xam nga loolu lu muy andi gis nga soo nekkee waxkat comme man di wër rajo yi di wax da ngay jub di tegu ci dëgg. mais est-ce di def dëgg. mais ce que Y euh, kuréel gi doom lenn lum ci yàq crédibilité am ci simook euh, kilifa bi ñu téye. xam nga xam nga xam nga Y nañu tegu ci li ñu doon tegu démb ak barki démb te bañ a far ci parti politique wala def politique suñ tegoo ci xeex créer nouveau type de sénégalais tegu ci yoon kenn du leen tudd ci dara. mais ak xew nii kilifa li mu mel ak Simon ni mu mel Alioune Sane melul noonu ah astafurlaa kenn déggagu leen ci loolu. ak caat ak caat kenn déggagu leen ci loolu. xam nga lu li gis nga nee naa la soo nekkee wax waxkat wala activiste wala xeexkat di takk rajo ni man dangay nekk ci lu jub nekk ci lu dëgg nekk ci lu leer nekk ci lu set. d'accord loolu mooy taxawaay bi. yaanaamaar moom liñ leen di xamal mooy. suñu bëggee seen mouvement bi gar am garde crédibilité bi comme ni ko sénégalais yi gar xamoon démb ak barki démb ñu bañ leen teg ay dilkat nañu raxas seen biir ba mu set parce que defkat yaa nag da nga ca biir. d'accord comme ni mu amee assemblée nationale comme ni mu amee feneen ak feneen. d'accord jërëjëf euh, Adama Fall ñu daal di wax ci li nga xam ne mooy euh, démb euh, ci àjjuma ji collectif ñoo lànk ak yeneen kuréel dañu doon ñaxtu li nga xam ne mooy dundu gu cher gi. ci place de que préfet bu Ndakaaru euh, tere leen ko euh, manifestation boobu ñu leen tere tere waan tere woon leen ko tamit semaine bële passé euh, yow lan moo ci sa xalaat. waaw xam nga autorité su defee su teree manifestation ñu ne ñun ay légalist lañ dañuy bàyyi manifestation yi toog nee nañ dañuy marche pour cherté de la vie dund gu cher moo tax ñu ne dañuy marche mhm. dund gu cher. da nga koy comparer ci fi mu jóge woon ak fi mu nekk parce que ba dund bi chéré lan la état bu Sénégal def sëñ bi état du Sénégal dafa woote consertation waxtaan jël proposition yi nga xam ni moom la commerçant yi proposé ñu dépp jébbal ko président de la République mu jël décision jël 47 milliards yi nga xam ne dafa waroon dugg ci keesu état mu gedd ko mu bàyyi ko pour mën a njëg yi wàññeeku. njëg yi wàññeeku njëg yi wàññeeku na njëg yi wàññeeku na bu baax bu baax sax delluwaat na ca fa mu newoon parce que ministre de la santé Assome Diatta may ko koy saluer au passage ci liggéey extraordinaire bi mu nekk di def wër na marché yi dugg ci boutique yi mëne enquête ba mu wóor ba nga gisee ni keroog ba ñu wàccee am na ay boutiquiers yu ñu ci jàpp. waaw d'accord mais mais dama ne man aadama euh, yow man nga ne njëg yi wàññeeku na yow Adama Fall. waaw man Abdou Khadre en tant que journaliste njëg yi wàññeekuwul ci li nga xamante ni tey man moom laa xayma ciment bi wàññeekuwul fer bi wàññeekuwul. Euh, suukar si suukar si suukar si suukar si man 600 laa ko doon jëndee kilo bi bi ma ko soxlaawaatee cinquante laa ko jëndee bitulu diwlin 20 litres bi nga xamante ni diwu salaat bi ma doon jëndee 22500 ñoo ngi ma ko jaayewaat 23500 te ba léegi nii euh, moom moom moom laa ko jëndee. Abdou Khadre waaw Abdou mm-hmm. d'accord naa ni ciment bi wàññeekuwul fer bi wàññeekuwul te let état bi mi ngi ciy liggéey pour xool naka la ñuy def pour wàññi njëg yooyu n'est-ce mbirum suukar sëñ bi ba ñu defee consertation ba mu jeex suukar bi dafa dellu siwaat waat ci 600 francs ku koy jaayee 650 tooñ na diwlin bi dafa dellu si ci litre bi 1200 ku ko jaayee leneen lu dul loolu tooñ nga dosette bi dafa jaay dafa dellu siwaat ci trois cent cinquante ku ko jaayee leneen lu dul loolu tooñ nga dafa am loo xamante ni nag man miy jënd maay am fulla ak fayda xam prix yi nga xam ni ay prix homologué la moom la état di fixé su ma ko xamee dugg ci bitig bi suñ ma ko jaayee leneen lu dul loolu ma wax bitig bitikee bi li nga def tegoo ko fenn parce que njëg li lii la. waaw mais mais Adama dund gi tamit dafa dafa metti fi mu ne nii loolu moom. loolu duñ ko ko di duñ ko di duñu bañ. dund gi dafa metti dund gu duñ ko bañ ci àdduna bi wërngal këpp la duñu ko metti ni nga ko yëgee noonee laa koy yëgee noonu la ko keneen ak keneen ak keneen yëgee ban situation lañ toll ñun. ci àdduna bi dañoo toll ci pandémie économie réew mi yëpp nax saa yi am na ay dëkk yoo xamante ni fayituñu saleer am na ay dëkk yoo xamante ni pour ñu dund sa tout un problème am na dëkk yoo xamante ni dañuy wàññi saleeru nit ñi pour def ci lenn li. Sénégal amu fi ñu ngi fay salaire yi normalement wàññiw ñu salaire ñi daan fayeekoo ngi ko ba léegi mais am na ci ñu ci ñàkk seen liggéey parce que hôtel yi doxatuñu restauration restauration yi doxatul parce que situation feebar bee tax mais terewul tëjuñu restaurant yi tëjuñu hôtel yi ubbi nañ lépp pour nit ñi mën a liggéey normalement mais situation de pandémie bi moo tax tourisme bi doxatul moo daan dundal restaurant yi ak hôtel yi ak nangam metti na dañuy ñaan suñu borom balaa màggal bii di ñëw feebar bi jeex fi tàkk ci biir réew mi. d'accord léegi euh, li nga xamante ni tey moom mooy euh, dund gu mett gi euh, sénégalais yu baree bare ñoo ngi koy jàmbat mais ANSD dañoo génne benn rapport benn enquête ANSD. enquête bi dañ ne ñoom rapport 2018 2019 gis nañ ne toll si juróom million ci askanu Sénégal dañoo ndóol rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw gi yow lan moo ci sa xalaat. xam nga ANSD. structure bu sérieux la responsable def ci ay statistiques rapport bi 2018 2019 la ne am na 6 millions de sénégalais yi nga xam dañuy dund ci ñàkk ci biir aat askan bi loolu duñ ko weddi du dëgg. Mhm. parce que askan bi ñoo ñu nekk ci biir Sénégal te di dund ci ñàkk mbay lañuy dundee. Mhm. du dëgg. 2018 mhm. 2019 nawet ba baaxul. bay ba doxul. pour ñu dund day jafe parce que ñi daan bay ceeb di ko dundee ñi daan bay gerte di ko dundee ñi ko ba daan bay géey dugub su taw ba doxul du dox maintenant su ñu amee loolu xam nga lu luñ ban taxawaay lañu ñu war a am mooy état bi fexe nu mu leen di dimbalee ñoom ba ñu mën a dimb dund ñoom mooy joxe ay vivres de soudire loolu mooy taxawaayu état fexe na ba nit ñu nekk ca kaw ga dund mais xam nga président de la République ba mu ñëwee pour dimbali ñooñu ci en place ce qu'on appelle la bourse de sécurité familiale pour dimbali ñi nga xam ni seen loxo yi jotu seen gannaaw te nekk ci biir Sénégal nekk biir Ndakaaru nekk ci biir Sénégal naka la ñuy def ba dimbali leen ba ci at mi ñu mën a am ñaar fukki junni di nga ko xeeb mais am na ñoo xamante ni xeexum ñu ko ci biir Sénégal am na ñoo xamante ni loolu mën na leen permettre ñu def ay activités pour mën ci dund loolu dañ koy saluer mais ci kaawu ANSD bi état bi li mu war a def mooy fexe ba ñooñu ñu jox leen ay vivre de soudure parce que sëñ bi nawetu ren bi lu coow li coow li coow li bari nawet bi baaxagul. d'accord léegi euh, Adama Fall président Macky Sall 2012 bi mu ñëwee. dafa ne dafay teg ay programme yoo xam ne. dafay wàññi ndóol gi ci Sénégal. rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw gi. mais li nga xam ne moom la rapport ANSD yi di wane. maanaam ndóol gi wàññeekuwul ci Sénégal léegi nag bu ndóol gi wàññeekuwul. te yow nga teg ay programme ngir wàññi ndóol gi jàpp naa ne programme yooyu kon lajjita la mën naa la jox benn exemple tey par exemple tey agression su doon am Médina yéen ngeen Médina ngeen ne dañu soxla soxla poste de police ñu defal leen fa ñaari poste de police agression yi di yokk kon day mel ni poste de police yooyu defuñu seen liggéey wala njariñ li bëriwul programme yi nga xam ne dafay wàññi ndóol la président Macky Sall tegoon ay CMI ay bourse familiale andi na fi ay DER pour ay financement xëy du demee noonu mais gis nañu ne ndool gi dafay yokk saa su nekk est-ce que du lajjite gu am ci programme yooyu. non xam nga xam nga suñu jëlee programme benn par benn bourse de sécurité familiale famille yi muy jël mi ngi koy jël ba léegi nombre de familles yu bourse de sécurité familial di jël 300000 familles ñu ngi leen di jox seen seen xaalis shaque fin du mois chaque 3 mois ba léegi. couverture maladie universelle mi ngi def liggéeyam ci biir Sénégal ba léegi ci mbirum paj mi. maintenant DER est-ce que ñi mu war a financer mi ngi leen di financer voici la question qu'il mérite d'être est-ce que financement yi ci ñi ma war dem ñu ngi fay dem parce que aussi gis nga gis nga suñu bëggee suñu bëggee ndóol bi wàññi Sénégal nañu jàppale jigéen ñi. mais yow lan moo tax nga ne est-ce que xaalisu DER bi ma ngi dem fa muy dem. te te laajoo ne est-ce que xaalisu bourse familiale yi ma ngi dem si ñi mu war a dem. est-ce que ñi ko méritoo lañ ko war a jox. non dama ne dama ne. Euh, bourse de sécurité familiale suñ koy jox dañ koy jox koo xamante ni loxoom jotul ci gannaawam ay doomam nekk nañ ci difficulté soo xoolee taux de scolarisation bi dafa yokku parce que bourse de sécurité familiale boobu moo ko andi. Mm-hmm. du dëgg prise en charge médicale des enfants yokku bourse de sécurité familiale boobu moo ko am parce que soo amee bourse de sécurité familiale da ngay am couverture maladie universelle. Mm-hmm. loolu moo ko andi. mais fa femmes yooyu di xam ni jot nañ bourse de sécurité familiale yi ñu ngi def ay activité yu leen di permettre ñu am ay revenu pour mën a dund mais financement DER bi laa wax ni est-ce que ci mu ñu mu war a dem ña ngi fay dem parce que su nekkee da ngay financer ab Adama Fall boo xamante ni mi ngi def activité mi ngi xëy di gont nga financer ko 15 millions sa financement yàq nga ko parce que du financement bi foofu la war a dem. Mm-hmm. li nga xam ni moom looy tey mooy dañu war a saytu évaluer projet yi pour xool. ndax taxawaay bañ ca war a am ña koy am. te loolu yaakaar naa ni c'est la responsabilité de l'État te état bi dina def saytu ba ca war. d'accord pour mën a xool ndax financement yi fa may dem ma ngi fa yem. parce que nag ndóol moom mënul ñàkk ci réew. il faut mu am ñu ñu pauvre parce que aux États-Unis y mais li ma xam mooy. nañu jàppale askan bi parce que sonn nañ. d'accord man nag Adama damaa jàpp ne Macky Sall euh, président président Macky Sall euh, dafa lajj ci. programme yi mu tegoon li tax ma jàpp ne dafa lajji euh, tey. moom mënul lajji. non Macky Sall mënul lajji xam nga tax mënul lajji dafa jël ay programme yi teg ko jox ko ay nit. d'accord peut-être ñoom ñoo xamul mun nañ mun nañ wax ne ñooñu ñoo comprendre vision président Macky Sall. d'accord parce que Macky Sall dafa dund pauvreté. d'accord léegi man président Macky Sall ci goneem. Ah. dafa dund pauvreté dafa dund ñàkk. waaw <laughs> ah, d'accord xam na luy ñàkk. xam na luy xëy suba ndekki woo. Ah. xam na luy xëy suba te añ jot ñu tegal la ñànk tang defal la ci tiir. xam na ko mais mais comme dénk programme bu loo man di def tamit sa responsabilité la. waaw moom lay tey par exemple man ki may liggéeyloo ci rajo bi nii. njuumte bu ma mën di def moom am na ci part de responsabilité. looloo tax ma ne la nañu évaluer programme yooyu sanctionné ñi nga xam ne defuñu ca la ca léegi nag xaaral ma expliqué la lu tax ma ne la programme yooyu noonu lajjite la. Euh, programme yooyu tax xaaral ma expliqué ma ne la lajjite la ak ay ay ay ay xumbal. xam nga ANSD yow yaa wax sànq ne corps la boo xamante ni bu sérieux la. ANSD ñoom dañoo xayma ne ndo maanaam ñiy ndóol wàññeekul ah. euh, beneen bi mooy bourse familiale yi pour waa kaw gi la ñoo si ëpp. non déet Dakar ci lañ bokk. mais kaw gi ñoo si ëpp ndax dañ ne bourse familiale yi ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw. te biñ Dakar am na non am na am na seen loxo jotul seen ginnaaw mais xayma bi ñu def dañ ne monde rural bi moo ci ëpp. moo ci ëpp euh, monde rural bi ANSD nee na ñoom ñoo gën a ndóol. te ñoom lañ gën a noo jegleel bourse familiale yi. sémi bi ngay wax nii. ñoom lañ ko ëpp luñ ko jagleel. PUDC bi pour euh, gox yi nga xam ne ñoo nekk ci monde rural bi la. c bi. te monde rural bi ba léegi ñoom ñoo ngi ndóol. kon léegi dafa mel ni saafara amugu ci léegi nag dama la bëgg a benn affaire léegi. monde rural yow mi dëkk yow mi dëkk ci monde rural bi. xam nga monde rural lu ñuy dundee. soo demee ci monde rural bi di nga ci fekk ay piste de production. Mm-hmm. soo demee ci monde rural bi dinga fa fekk ay ay ay ay ay ay forage yu bari mhm. soo demee ci monde rural bi di nga gis ay dëkk yoo xamante ne amuñu woon électricité ñu am ko tey du dëgg soo demee ci monde rural xam nga couverture maladie universelle soo ciy wax il faut ñu ñu taxaw ci def taxaw seetlu parce que nee naa la sànq ne la nombre xale yi nga xam ne jël nañ ko en charge ci biir askan bi parce que état bi li mu def dafa rëy dafa ne da ngay fay 3500 man ma defal la 3500 ya ci des su ma mënul faju du ma mën a def mille cinq 3500 yi ci ci bourse de sécurité familial bi 300000 famille la jëlul monde rural bi yëpp. d'accord li ñu war a def mooy ñu lancer un appel au président de la République Macky président xam nañ ni nga fonkee doomu aadama xam nañ fi nga teg doomu aadama. xam nañ ni nga xamee souffrance doomu adama xam nañ ni nga xamee ñàkk ni nga def ba teg programme bourse sécurité familial muy trois trois cent mille familles président dañ lay ñaan nga yokk ko à un million de familles. d'accord léegi euh, Adama Fall man sànq dafa doon wax loo xam ne danga maa dagg yow nee nga sax Macky Sall dafa xam ndóol. mbooleem ñu ànd ak Macky la. mën naa ne la quatre vingt dix pour cent dañoo xam ndóol. mën nañoo nekk nag ay complexe léegi di bañ a dem ci seen village yeeg bañ dafa am kër ak et tout ça bañ a bañ leen di dund mais Sénégal ah. non mais Sénégal gii ñu fi xamul ndóol bëriwul nañ waxante dëgg man ci kaw gi laa juddoo ci monde rural bi te dama lay wax ne la département bi ma dëkk ba léegi nii su la neexee léegi ma la benn communiqué ba la neexee moo génn la léegi benn communiqué ci benn site internet bu maire yi nekk foofu 14 communes génne ne phase 2 PUDC bi foofu. d'accord mais mais danañ wax nag. Euh, li ma la bëgg a expliquer mooy ban ban département département de Mbacké la. léegi dama la wax benn affaire foofu moom. foofu ah. foofu dama ci ànd ak yow. Mhm. parce que PUDC ak seegul Mbacké. Mhm. phase 2 noo dama ne phase 2 PUDC ñu ngi ko laaj ñu ngi ko lancé PUDC 2 ñu ngi ko lancé Bignona. Mm-hmm. Bignona ni ngi ko lancé Bignona. Mhm. avec le ministre secrétaire d' état le ministre Souleymane Jules Diop moo ko lancé Bignona président ñëw fa. d' accord du dëgg. phase naa. PUDC dajul xam nga PUDC bi dajul fépp. waaw mais d' accord naa mais dama la bëgg expliquer nag benn affaire. CMU bi léegi nag li ñu def. léegi Adama peut keneen su ñëwee mu def leneen rek. Adama dama lay wax benn affaire ci programme yi xam nga tey président Macky Sall dafa am loo xam ne oh. euh, moom xaw ma ñi ko ñi muy liggéey ñi muy ñi muy wax pour ñu liggéeyal ko ñoo mënut a liggéey mais moom dafay teg ay structure ay programme yoo xam ne kenn du ko laam-laamee kenn du ko werante programme bu PUDC kenn du wax ne ni mu ko tegee baaxut CMU kenn du wax baaxut mm. bourse familiale kenn du wax baaxut mm. mais ni ñu koy jëfandikoo xam nga banque mondiale xam naa peut être di nga wax si loolu banque mondiale ñoom dañoo def rap xam nga banque mondiale ñoom nekk tamit di contre Sénégal amuloon benn ñoom dañoo def benn étude benn enquête ne pauvreté bi dafa yokk non seulement nee nañ pauvreté bi dafa yokk mais nee nañ amul transparence ci distribution bourse familiale yi waaw xam nga loolu su ko banque mondiale waxee c'est parce que def nañ enquête bu rëy bu mu am solo mais distribution banque bourse de sécurité familiale yi maire yi ñoo koy joxe ñoo koy def ñooy liggéey bi les maires ñooy def liggéey bi maires yi suñu defee liggéey bi saa ñu jox ko ñu ko yelloo dañ koy jox seen i militants soo demee à l'intérieur du Sénégal. mais loolu moo xam. non déglu rek damay jël kaa man sama commune sama commune man di Médina. du dëgg. gis naa fa ñu ñu jox bourse de sécurité familiale bi soxlawuñu ko. soxlawuñu ko. sama biir koñ gis naa nu ñu jox bourse de sécurité familiale bi soxlawuñu ko te ña ngi ko soxla ña nga ca biir koñ ba. kenn joxu leen ko kenn joxu leen ko. ku ko def du maire ba soo demee à l'intérieur du Sénégal ñu koy def du maire bi parce que ñooy xool ñi ànd ak ñoom ñu jox leen ko. est-ce que c'est normal. ak ku ko mënti def nag parce que programme bi ba koy président di def daf ko defoon pour dimbali ñi xam ni seen loxo jotul seen gannaaw mu ne sax jigéen laa koy jox parce que góor soo ko joxee mu takk ñaareel mu ne jigéen ñi laa koy jox parce que jigéen ñee yor kër gi kër yi. mu def liggéey bi jaarale ko ci préfet yi dem jël contact ak maire yi parce que maire yi ñoo xam lu xew seen go localité ñoo xam ñu xew lu xew seen gox ak seen gox ak goxaat mais sans ñu def ci un travail transparent jox ko ñi nga xam ni dañ ko yellool seen loxo jotul gannaaw mais dañ ko jox ñoo xamante ni yelloo ñu ko ah exemple yi ma gis de sama biir Médina laa ko gisee sama biir koñ laa ko gisee man parce que am na famille yoo xamante ni man xam naa leen biir sama koñ wallahi soxla nañ bourse bi te amuñu ko billahi wallahi taalaahi barke alxuraan kon par parloo daf ci am bu bon <laughs> d'accord léegi ah. man déggoo li ma wax man sëñ bi man fii fi ma toog nii sama bàmmeel laa toog amul dara lu ma jaral wax loo xamante ni du dëgg lu ma gëmul d'accord mais Adama léegi nañ wax ci euh, monde rural bi enquête bu jot enquête bu ñëw ñu ne ñoom ñoo ngi gën di ndóol est-ce que tamit est-ce que tamit tey waruñu woon a xoolaat stratégie eh, bi. non maintenant gis nga monde rural bi agriculture la ñu am mbay ak sàmma sàmm nañ ko moderniser. gis nga ni état du Sénégal di jox tracteurs yi ñu yor tool yu mag yi. ce sont des grands agriculteurs. or ces gens-là son des paysans. nañu accompagner ces paysans-là moderniser mbay mi pour ñu mën ci gis seen bopp. mais man ma yor ay hectares. nga ñëw yëkkati ay tracteur jox ma bàyyi baykat ba bàyyi la yow Abdourahmane mi yor sa benn tool joxuñu la tracteur jox la mënoo dab ki yor tracteur ba parce que sooy seetlu sooy seetlu dans la démarche ñi nga xam ni ñoom la ñuy accompagner ci machination bi parce que état mi ngi joxe ay tracteur ah machinage mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi matérialiser mi ngi industrialiser mbay mi mais fi mu ko jëmale du foofu nañ ko jox béykat bu ndaw bi mu mun a industrialiser mbéyam. d'accord nañ leen jàppale ci mbay mi n'est-ce pas. nañ leen jàppale moom ñu moderniser élevage bi moderniser mbéy mi. parce que état bi dafa teg ay programme ngal la maa ngi lancé na appel à ma sœur Thérèse Faye moo géré FONGIP na dem ci àll bi jaareex boobu mu dëkk. na dem ci àll bi jàppale mbéykat yi jox leen ay matériel yu doy pour ak ay matériel yu doy ñu moderniser seen mbéy moderniser seen élevage. mais agriculture ministre mooy mbéy no xam nga ministre bi financement laa wax ñu financer leen ñu moderniser. le ministre de l' agriculture programme yi ngi mu yor am na solo nañ ko jëmale ci ñi amul doole parce que nag nañu wàññi ñi am alal ñooy am alal. ñi amul alal ni ñàkk di ñàkk nañ ko bàyyi. jërëjëf jërëjëf euh, Adama Fall mbokk yi moom la ñu invité ci seen rajo réew mi FM seen émission pencum réew mi euh, Adama Fall nag mooy coordonnateur national du serment nekk membre euh, du réseau national des enseignants de l'APR maanaam jàngalekat yi bokk ci APR ci kuréel googu la bokk mu nekk tamit responsable politique ci fi nga xam ne moom mooy Médina. Euh, Adama waxtaan nañ ci euh, lu soxal wàllum trafic passeport diplomatique yi wax nañ ci lu jëm ci wàllum njëg gi euh, njëg yu yokk yi ñu wax ci li nga xam ne nag moom mooy élection locale yi élection locale yi ñenn ñi dañoo jàpp ne Euh, problème mu investiture investiture soo muy tuulee dana am ci biir benn Bokk Yaakaar euh, ci ci ci ci gox yépp ndax li ñu nemmeeku mooy boo demoon tey fu mel ni euh, Ziguinchor tey yaa ngi fay dégg ay responsable yoo xam ne kenn ku nekk mag naan candidat la Euh, peut-être c'est normal ndax ci politique lañ nekk boo demoon Kolda tey euh, danga fay dégg ay Moussa Baldé ay Mame Boye Diao ay Bibi Baldé boo demoon tey fu mel ni Rufisque yaa ngi fa dégg ñoom Ismaïla Madior Fall xuloo baa nga fa mel ni Tulle ak Mallé euh, nga dem Médina Seydou Gueye ma nga fa Cheikh Ahmed Tidiane Ba ma nga fa yow fa nga dëkk dinañ ci ñëw xam naa ne boo demoon Saint-Louis Mamour Mansour Faye ma nga fa ki nga xam ne mooy Mary Teuw ma nga fa coow laa mel ni Tulle ak Mallé Sénégal ville bi Amadou Ba ak Abdoulaye Diouf Sarr coow laa ngi mel ni Tulle nga dem Diourbel pëcc xoo gaa mel tuleeg maa la diggante Moustapha Gueye ak ak Dame Diop euh, ñenn ñi jàpp nañ ne problème dina am ci investir benn bokk yaakaar yow lan moo si sa jàngat boo si doon def benn résumé. Euh, problème sax warul mun a am parce que dafa am loo xamante ni dafay régler boppam ci communes yi nga xam ni ñoo ko gañe woon ñun waa Benno Bokk Yaakaar ñoo ko doon gérer suñu bañee coow am. nañ leen ko bàyyi nañu bàyyi ña fa newoon ñu jàppale leen ñoom ñu ko ñëwaat ah ñi si tax naa amuñu ambition waa déglu rek parce que nag soo bëggee coow soo mooy soo bëggee moytu coow da ngay fay coow te suñu jëlee suñu bopp dénk ko président daf ñu yàgg di tànnal ñuy am ndam daf ñu yàgg di tànnal candidat candidat yooyu ñu am ndam parce que xam na li xew ci gox goxaan yi gox bu ca ne mm-hmm. parce que le président de la la personne la mieux renseignée dans ce pays gox ba ca ne ci biir Sénégal xam na kan moo ca yar doole kan moo kan koo xamante ne suñ ko jiitalee dinañ am ndam nañ ko wóolu te doyloo ko. mais gisoo ne problème dina am. munul am su nekkee dañoo tegu ci li ñu nekk maintenant nag. mais gisoon nañ fi élection locale yi. yi ngeen fi njëkk a def problème dañoo jàng 2014 nag. Ah. dañoo jàng ci suñu 2014. Ah. ba ñu jàngee ci suñu 2014 moo tax mu yeeñu gis nga. Euh, su ñu jëlee li nga xam ni moom mooy commune yi nga xam ne ñun ñoo ko gañee ñu bàyyi fa ña fa ne. même bu dee allié la ñu bàyyi ko allié. waaw ñun alliance lañ def di. du du benn bokk yaakaar la ñu demee. waaw demeewuñu de. waaw su nekkoon APR la nag ñu xëccoo mbaaroo suñu biir. non non APR ñoom dañoo. APR ñoom séddale non non Adama APR affaire séddale bukki la ñuy séddoo fi mu ne nii tey am na commune yoo xam ne ay socialiste ñoo fa nekk wala waa AFP fi ne nii yéen waa APR lu ngeen man pour fexe ba def seeni i. seen kii ba jëlee leen fa ko def. non xam nga man maay wax. waaw man damu Macky Sall moo ma gën a lu ma am ci àdduna ki bën a gañeel Macky la lay xool ak fu ma mënti bokk nag man xooluma sama parti de moi je cherche la victoire du président Macky Sall pour ces élections locales mooy coalition bi ma bokk di Benno Bokk Yaakaar mu diriger plus de cinq cent quinze communes wala cinq cent vingt communes. waaw ah, léegi léegi. pour loolu am. pour loolu am. Mhm. il faut nit ñi nangu fàtte seen bopp ak seeni parti xool ki am doole ci biir commune bi ñu jiital ko. mais léeg-léeg euh, Adama Fall politique ni mu demee am na ñoo xam ne ay lobbykat lañ ay lobby ay lobby lañu am ci palais xam nañ ci benn léegi xam nga dafa am ñoo xam ne léegi am na ñoo xam ne dañuy am doole ci benn gox ñu néewal leen doole tey par exemple tey ku si mel ni Lat Diop Guédiawaye ak Fatoumata Néné Tall. ñoo nga fay xëccoo mais am na maire ba fa ne. waaw xëccoo am na maire ba fa ne ay Aïssata Sow Diawara. Benno Bokk Yaakaar la bokk. xanaa kooku bokk bul nekk mais dama ne la ah xanaa xam euh, lay wax lenn dafa am ambition. dama lay wax lenn ñu xam ko xam nga président tànnagul. Mm-hmm. mais connaissant le président de République Macky mm-hmm. xam naa ni tulleeg mballe bii di am. Mm-hmm. yëngalu ko sax parce que xam na li mu war a def xam na fi mu jëm. mais ay liste parallèle. non dama ne dama ne tey. dis nga nag ngal la soo defee liste parallèle fexeel ba da nga gañe ki nga defal liste parallèle su la gañee tey nga dee. parce que ah. dina la rëq dina rëq sa ndigg mais xam nga tey Adama lu tax man ma jàpp ne yéen mën naa am problème yéen 2014 bi ngeen di doog di toog. bi ngeen di toog xam ne président Macky Sall am na possibilité. Hmm. na la bàyyil dinaa la def def député. bàyyil dinaa la dugal fii bàyyil dinaa la dugal fii. te teewul problème amoon na ci seen investiture yooyu. léegi léegi nag loolu moo tax ma ne la amoon ngeen ko cees amoon ngeen ko baax Sénégal gi yëpp. waaw léegi nag Sénégal gi yëpp amoon nañ problème d' investissement nag wax naan deuxième 2024 dina def beneen mandat wala def beneen mandat. loolu du ma ci dugg du ci dugg suñ ci waxee du ma ci dugg duñ ci dugg dinañ taw dinaa la tontu loolu soo bëggee ñu waxtaan ci loolu. dama ne munoo fexe ba parti bu mag. ambition du fa am. loolu laa d'accord. man amoon naa ambition pour jiite la mairie de la Médina. mais amutoo ko. mais dama xippi samay gët xam ni su ma fa nekkee di xëccu am na koo xamante ni moom la waa Médina jox bopp parce que nag nee naa la ndamu Macky Sall ci biir Médina moom laa jiital jiital ma ndamu nit de ma xool xam ni am na ku mbooloo na ko nit ñi def na nit ñi toogee noonu. politique générosité la. waaw mais yow xam nga euh, politique générosité la mais na ko nit ñi am. man man li ma am. peut-être ni ma mel ñeneen ñi meluñu ko. waaw mais yow xam nga sànq Adama dafa am loo wax yow nee nga. waaw Benno Bokk Yaakaar. waaw. maire yi nga xamante ni tey ñoo jiite woon communes yi. waaw loolu su day régler problème. waaw xaaral ma si biir non mën naa bañ a régler problème yi. non ren loolu day régler problème par exemple suñu demee Golf Sud suñu demee Golf Sud. exemple Golf Sud. ñu joo jiital ay Sow Diawara. Lat Diop Lat déglul Lat Diop du fippu ne nataal du fippu kenn du ci fippu. mais Lat Diop liggéey base politique am. nee na fa nee na fa daal liggéey base politique non dama déglul baax la ma dama ne. kenn du ci fippu ci ñoom ñaar. waaw mais parce que ku ci fippu ñu rëq sa ndig. mais yow yaa ngi wax lu garaaw nag politique du affaire de rëq sa ndig affaire de gentleman la xaar ma expliqué la rek la mais Adama yow par exemple tey ay mën ngaa jiite benn maire mën ngaa jiite benn maire askan ma dem ma bëggatuñu la Adama ma fa nekk tey xaar ma expliqué la Medina gaa non xaar ma expliqué la rek waaw non la non ci côté yooyu du juum waaw ah, non tey tey tey le président de la tey am na lu mu xam biir Golfe Sud loo xamante ni xamuloo ko keneen ak ñoom Lat Diop yi yëpp xam nañ ko tey su nekkee Lat Diop moo yoon mbooloo ma ah. dañoo bëgg gagner nañu fàtte suñu bopp laa wax déggoo li ma la wax dama ne nañu fàtte suñu bopp parce que ñi fiy taxaw di wax yëpp seen bopp la ñuy waxal ah. non déglu rek ñi fi taxaw di fëgg seen dënd ñépp laa wax tant qu'ils sont seen bopp la ñuy waxal waxaluñu Macky la seen intérêt bopp la ñuy xool xooluñu intérêt Benno Bokk Yaakaar xoolu xooluñu intérêt askan bi askan bi am na ñu ñu jox bopp su nekkee population bu ginnaaw raay noor yow Abdou Khadre lañ jox bopp na Macky Sall jiital Abdou Khadre. pour nga léegi léegi xam nga tey euh, yow aadama da nga wax sànq ci euh, Golf Sud. mais da nga wax benn affaire da nga exemple Golf Sud. laa joxe exemple. mais xaaral ma expliqué la. tey pré waaw léegi déglu ma expliqué la léegi xam nga tey yow danga nga ne nañu bàyyi maire ya nekkoon foofu ñu soutenir leen. man exemple laa joxe waaw ko joxe mais dama la wax benn affaire. léegi dama la problème bi laa lay wax rek. fi problème bi nar a amee. dama ne la askan bi nekk tey boo xoolee maire yi seen mandat dafa jeex bu lu baree baree bari. askan bi suñu d'accord. Euh, waa léegi xaaral ma expliqué la te askan bi dafa am gox yoo xam ne. peut-être mën nañu ne doyaluñ ci maire bi wala dara maire baa ngi liggéey. Ah. mais dafa am maire yoo xam ne mën nañoo bokk ci benn bokk yaakaar. te liggéeyuñu. Hmm. waaye euh, responsable politique ba fa nekk. socialement taxawaay bi mu am ci askan ba. Hmm. maire ba amu ko ci askan ba ba askan wa ñoom yàkkamte élection ñëw ñu def changement. waaw loolu président Macky Sall na ko déglul loolu président Macky xam na ko te su boobaa dina woo Aïssata Sow Diawara ba mu ñëw mu ne ko Aïssatu dama lay ñaan élection yi nga bàyyi ma samp diw te su boobaa Aïssatu dina ko nangu. Ah, léegi fi léegi euh, fu ngeen musul fu bu dee fu ngeen musul gagné nag fu mel ni Medina. su mel ni Medina Medina waa Medina ñoo tànn sëñ bi. Seydou Gueye. da bëgg ñu waxtaan. non tànn Seydou Gueye laa gis ci presse bi. ñu ne Medina ah. Seydou Gueye lañ tànn. Ah, ah, candidat non de du Medina de APR Medina la ñu wax. waaw APR Medina waaw. très dafa woote réunion lundi passé biir permanence kër Macky APR dafa woote réunion foofu man mii yónnee nañ ma message. dem nga. ba pare wëlbatiku woo ma téléphone ma ki ma woo ma tontu ko ne ko. Seydou moo la yónni pour nga woo ma ne ko moom na ma woo donte APR laa bokk ba réunion bi tàmbalee 18h45 benn prise de parole moo am ma jox la ko scoop yow ordre jour jour réunion boobu ma jox la ko scoop premier point information deuxième point vie du parti troisième point divers Seydou ne Cheikh Sall jëlal procès procès verbal bi. Cheikh Sall mooy le coordonnateur de la COJER de la Médina scoop laa lay jox amagul presse bu yëg lii mu jël procès verbal bi ne premier point information Seydou jël parole. moo continuer de moo jël parole continuer wax ci divers yi ne jaale nañ diw jaale nañ diw jaale nañ diw ñëw ne acca nañ dem ci candidature yi Cheikh Sall jóg ne ko bokkul ci procès verbal ba. procès kii euh, ordre jour bi sa investiture ñu ngi ko yëgee ci mbedd mi sa candidature ñu ngi ko yëgee ci télé yi te warul demee noonu benn booyom xàllee ca làng ga dugg ci biir sa taxaw yëkkati ay verre saaga ndey ne Seydou mooy suñu candidat saagante ndey ba jolli réunion ba àggul ñu dóorante ay kurpañ saagante ndey noonu la demee Seydou rocceeku ci suuf dem këram bind communiqué jox ko Pascal Aliounou qui travaille au niveau du BIC mu yónnee ko presse bi ci guddi gi presse bi génne ko mais as as réunion boobu APR Médina kenn jëlu ci parole ne Seydou Gueye amul résolution buñ fa liir te nag for nañ ci weewu béy ne am na presse bu mag bu nekk biir Médina waa Médina moom ko bu ñu proposer cent mille francs jox ko communiqué bi ak ay photo pour mu publier ko. mu lànk mu lànk tëdd ne duma ko def parce que lii xewuloon ca ndaje ba loolu mooy candidature de la manipulation. candidature manipulation yooyu nag dafa bëri ci biir APR. mooy li nga doon wax mais est-ce que ndaje moomu noonu responsable yi demoon na ku si mel ni Cheikh Tidiane Ba ak ñooñu. yi kenn bokku ca Sidi Sam demu ca Moustapha mbay demu ca Pape Jean Ndiaye demu ca ñooñu ñoo créé parti bi Baye Dieye demu ca Adama Fall demu ca. kàngam yi créer parti bi biir Médina demuñu ca parce que xamoon nañ ni foofu la jëm mais ma wax opinion bi ne la ndaje boobu ak gul rëy fa résolution dañoo fay journaliste yi ko bind dañ leen a fay xaalis pour ñu génn produit bi te Pascal nu te mu nekkoon journaliste Walf Fadjri mooy liggéey ak Seydou Gueye moo yónnee communiqué bi di leen proposer xaalis pour ñu bind communiqué bi noonu la demee mooy candidature manipulation candidature manipulation yooyu ñoo ëpp ci biir APR. ñoo ñoo jege biir mi ñoo ñoo jege président di manipuler naan nangam sangam ñi yor mbooloo bi déggoo leen ñu wax. mais président xam na. président xam na xam na. mais mais d'accord nga ne biir lu bi ay lu dafa bëri biir APR. ëpp moo ci ëpp. gis nga président su dégloo lobbyeur yooyu ñuy lobby pour ñu gañe yi dañ ñuy duma Médina moom Médina bii ma dëkk. maire sortant bi mu ngi téye kurusam di wër di ñaan ñu jiital say Gueye pour mu gañe ko. waaw. Seydou Gueye mooy nooy neexam. mooy daay laa da koy làpp. mooy Barça mooy mooy mooy mooy Paris Marseille Paris day làpp Marseille tout le temps rek du dëgg. tey li li neex ci mbir mi mooy waa Medina ñoo jóg ni diw la. diw moomu kan la. Cheikh Ahmed Tidiane Ba. waa Medina xam nga yaa koy yaa ngi koy wax gis nga nga ne mana mën a mën a mën a yow a yowaa ko dàq ñun APR lañu bokk ñoo njëkk def conférence de presse ne dañuy soutenir candidature Cheikh Ahmed Tidiane Ba 18 élus conseillers municipaux fàqe ci Bamba Fall ñëw taxaw ne dañuy soutenir Cheikh Ahmed Tidiane Ba les activistes de la Médina xam nga ñëw ñooñu ànd ñoo Macky Sall fàqe ca làng ga ne dañuy soutenir Cheikh Ahmed Tidiane Ba les artistes de la Médina fàqe ci langue gi ne dañuy soutenir Cheikh Ahmed Tidiane Ba CRAC cadre de réflexion les intellectuels de la Médina fàqe ci langue gi ne dañuy soutenir Cheikh Ahmed Tidiane Ba M2D le mouvement national mouvement de la des femmes de la commune fàqe ko ca langue gi ne dañuy soutenir ñoom ñëpp def nañ conférence de presse ne dañuy soutenir Cheikh Ahmed Tidiane Ba Cheikh Ahmed waxagul. mais mais lu mu fa def lu tax ñu war ko soutenir. waaw li mu fa def mooy taxawu askan bi jàppale askan bi. dimbali leen di jàppale élèves yi di leen di leen dimbali ci ay bourses ñuy jàngi à l'étranger ñi nga xam ni seen lo seeni doom dañu nekkoon caabi daf leen féete woon gannaaw mu utal leen ay avocat ba ñu jugé leen ba libéré leen taxawu askan bi su tamxarit jotee mu jàppale penc yi nekk ndakaaru tu tabaski jotee mu jàppale ñëw di doole yi nekk mbir Médina te du ko wax fenn nag du ko wax fenn ci korité jotee mu def ko te ko tamxaritu ren moom dong moo ci jàppale penc yi. d'accord gisuñu maire gisuñu keneen. mais Adama nag xam naa ne local yi nag xanaa moom di ngeen fas yéene góorgóorlu nag li laay war a sul yéen waa benn bokk yaakaar nag ma ne la yéen waa Médina ndax yéen fu leen Bamba fekk ma fekk. waaw dama gis ne yéen fu leen Bamba fekk. ba ngeen ba ngeen ba ngeen ba ngeen tëddee Abdou ba Abdou Khader Bamba Saaye. billaahi wallaahi taalaay. wala amagul combat. bi mooy combat non 2009. def ñoo làpp ba ñu mille 2014 mu doublé suñu score. Uh-huh. du dëgg. mille mille 2019 2022 bi nag ah mi ngi doog a am mbër ci li ma yaakaar parce que population bi ñoo jóg ni diw la. Mm-hmm. ba moom moom mbaam Bamba jaaxle na de dama lay wax de jaaxle. mais su sañoon dem ak su sañoon Macky Sall Seydou lay jiital. pour mu nooy nepp ci moom waxuma nag. <laughs> eh non nooy ndax da ngeen koy da ngeen ko dem soutenir ko. kooka la. Euh, Seydou bu ko bu ko bu ko Macky jiitalee yéen. yéen ñaan ak sama waxu démb sama waxu démb mooy sama waxu tey. wax naa ko ci ay tele wax naa ko ci ay rajo. Hmm. Macky su defee erreur jiital Seydou Gueye biir Médina ma dem jiite listu Pastef. ah bon waaw. Hmm. man. Cheikh Ba nag. par discipline de parti dina jàppale Seydou. mais est-ce que même bu dee Cheikh Ba wax na ci kaw na jàppale la Seydou est-ce que militant bi dañ ko dàgg dañ ko nangu. mu ko. votre sanction. la Médina veut le changement. avec avec Cheikh Ahmed Tidiane Ba. Médina bëggul changement ak Seydou Gueye. parce que amul xam xarañul. Médina bëgguñu ko. wallaahi nee naa la Seydou sama grand frère la sama xarit la. ba ma amee vingt deux ans la nekk sama la lay ànd ak moom di politique bokk ak moom parti de la réforme waaw mu xeex ma fa nag xeex bu ne te biir parti de la tere woon mu nekk sama grand frère ànd ak moom fu ne su daan dem ci plateau maa daan toog moom mu toog ci plateau ma ma toog tey li may def ci biir plateau ci moom laa ko gisee. d'accord mais soo demee ba xam ni fii mënul da ngay fàtte sa ego Seydou grand grand frère xam naa ni bëgg nga Médina. xam naa ni fonk nga waa Médina xam naa ni bëgg nga jiite meeru Médina mais waa Médina ànduna nag ñëw munoo gañaloo Macky Sall dama lay ñaan dama lay ñaan man sa rakk dama lay ñaan ci barke sa ndey bi nekk ajjana nga bàyyi sa bëgg-bëgg bi yépp ñoo jàppale sa rakk defal ko mag ngir Médina ak ngir la président Macky Sall mi nga xam ni sa xarit la jërëjëf euh, Adama Fall ñoo ngi lay sant di la gërëm. jërëjëf Abdou Khader maa ngi kontaan ci ndaje bi euh, di wax ni euh, je suis à la disposition wax ni kontaan naa ci ndaje bi mais saf nga sàpp nag. jërëjëf <laughs> jërëjëf Adama Fall coordonnateur national du CERMA membre la ci réseau national des enseignants de l'APR mu nekk Medina di fa politique mbokk yi moom la ñu invité woon seen émission pencum réew mi ngeen di sànd ak Abdou Khader Seck samedi bu jot 15h jàpp 16h Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci